ma lay fay Seynabou euh, tey euh, figure bu mag ci wàllu sport moom moo génn àdduna di Pape Diouf euh, lan nga ñu mën a wax ci moom posé nga ma question bu am solo mais bu rëy li ma mën a wax ci moom daanaka du xëj ci émission parce que d'abord man personnellement sama idole la sama kilifa la sama mag la Euh, sama référence la dama koy tiitaroo ci jamono ji nga xam ne dañuy naan daanaka repère dafa ñàkk ci génération actuelle Pape Diouf nag dafa neex a tiitaroo euh, parce que jaar-jaaram mu ngi juddoo Tchad en 1951 ci ay parents yoo xam ne ay sénégalais lañ euh, mu jógee Sénégal dem France à l'âge de 18 ans demul Paris fi nga xam ne sénégalais yi foofu lañ bëri dafa dem Marseille l'une de villes peut-être les plus hostiles mu dem foofu foofu la def jaloore euh, d'abord en tant que journaliste nekk nit ku ñuul nekk journaliste ba ñëpp ràññee la di la xëccoo yombul yàlla joxu ko n'importe qui mais dafa nekkoon quelqu'un qui est digne qui est généreux qui est très talentueux pointu rigoureux euh, esprit d'ouverture ci biir diversité française nga xal li fa yoon yombul dafa dem ba benn moment mu nekk référence képp kuy bokk ci diversité bi maanaam nga nekk naar arab wala nga nekk noir donc maa ngi doon wax léegi journalisme am mais mu jóge si loolu dem ci métier bi nga xam ne ñu ngi koy woowee agent de joueur agent de joueur daanaka dafa nekkoon benn métier boo xam ne peut-être ñi ko doon faral di def ñooñu ay tubaab rek lañu donc c'était réservé mu dugg foofu wan leen ne ni affaire bi du question de couleur man mun naa ko def bu fa duggee nag man li ma ci gën a neex mooy xam nga agent de jour boo ko waxee ñëpp ay tiit dañuy faral di wax agent de joueur yi dañuy doubler seen ay seen ay joueur dañuy lekk seen xaalis dañuy def lu nekk lépp gis nañ ko waaye Pape bu mu fa ñëwee gis nañu ay Franck Leboeuf moo leen yore woon Marcel Desailly moo leen yore woon Sylvain Wiltord moo leen yore woon ba ñëw ci Didier Drogba équipe nationale Sénégal bu 2002 daanaka 80 pour cent ci joueurs yëpp moo nekkoon seen agent mais aussi li ma ci gënoon neex ci moom. déjà wane na foofu que c'était possible mu jógee foofu nekk président olympique de Marseille moom kenn moom coach moo musa nekk président en tant que nit ku ñuul président du club le plus populaire de la France mu neex nit ñi ak mu nakar leen yépp loolu mooy dégg mu nekk aussi le seul noir président de club en Europe mu wane fa lu tax nit ñi fonk nit ku ñuul man ci côté boobu laa koy nawee surtout Euh, mu def Olympique de Marseille presque quatre ans cinq ans yore fa ay responsabilités yu mag mu nekkoon nag quelqu'un koo xam ne aussi ci wàllum wax wax ak bind yàlla def ko mayoon parce que ñu bëri journalistes yi soit da ngay mën a wax wala nga mun a bind mais moom yàlla def ko mayoon ñaar yëpp dafa mun a bind dégg tubaab ba pare mun a wax ku mu toogal tamit nag du mun a wax rek du nekk di wax ak n'importe qui non non non dalay wax avec des arguments yoo xam ne dafa plausible Euh, mu jógee ci loolu mu établir tamit nag benn pont diggante génération am bu mu nekkaloon parce que maa ngi lay wax léegi mu ngi judd 1951 donc génération am mooy ñoom Mamadou Koumé ñoom Babacar Touré Abdoulaye Ndiaga Sylla Babacar Noël Ndoye ak ñeneen ak ñeneen mais terewul dafa établir benn pont diggante génération boobu ak ñun suñu génération ba gala ANPS bi mujj mois de décembre bi passé bi ñu yégee ne mu ngi fii parce que musu fi géej chaque fois que équipe nationale du Sénégal di football muy fii muy feneen dagg bi billet am première classe ñëw na seetaan si na joxe na xalaatam ñibbi na Marseille comprendre nga donc bu mu ñëwee fii ñu invité ko dafa ñëw toog waxtaan ak ñun moo nekkoon la première personnalité à arriver sur les lieux pour te dire ponctualité et régularité ak li ma la wax nii yépp bañ a xeeb kenn waxul ne ñii kat xale yi léegi lii wala la déedéet donc établir na pont boobu fi may daanalee foofu rek établir na pont bi ba kenn si ñun tey jii bokk na si journaliste yi gën a xarañ fii si Sénégal journaliste sportif Bakary Cissé nekkoon nekk rédacteur en chef bu journal record moom moo ko fii jëlee yóbbu ko Olympique de Marseille tàggat ko dimbali ko ba mu am diplôme am mu ñibbisi muy door waar fii ci Sénégal donc soo gisee parcours kooku noonu bu génnee àdduna tey ah une semaine seulement génn adduna ki nga xam ne mooy Manu Dibango def tamit jaloore ci biir Occident ju fu génn àdduna donc tey jii du sénégalais rek moo am nakar du africain bi rek moo am nakar c'est le monde entier mais ñun en tant que noir dañuy gën a fier surtout ci ñaar ñooñu lu rëy a rëy a rëy la ñu wane ci nit ku ñuul c'est à l'image de Martin Luther King c'est à l'image de Nelson Mandela man très franchement foofu laa ko teg c'est pas du chauvinisme c'est rien du tout c'est son parcours du man rek maa ko wax tey jii télévision moo mënta jàpp ci àdduna bi muy bu tugal bi bu Europe bu feneen nit ñi dinañu wax ci Pape Diouf mm-hmm. te amul kenn kuy wax ci moom lu ñaaw lépp lu baax lañ ko xamee mm-hmm. mu nekkoon quelqu'un qui est très généreux qui aimait sa famille c'est extrêmement important parce am na ñoo xam ne bu ñu defee bu demee ba seen loxo jot seen ginnaaw rek dañuy fàtte fu ñu jógee mm-hmm. Pape musul fàtte fu mu jógee donc il toujours maintenu ce lien la entre Sénégal dakaar ak l'Olympique de Marseille firnde bi nag mooy fii pourtant fëlee la amee coronavirus bi fii la yàlla def. fii la fii fii fii la fii la tëdd. damay dellu siwaat ci ba mu nekkee Olympique Marseille jóge fa mu nekk le seul président bi nga xam ne jóge na fa ba tey Marseille yi bëggaat mu nekkaat président club bi. mooy li ma la wax rek parce que bu nekkoon euh, tubaab yi li ñu doon xaar ci moom. Mhm. defu ko kenn du ko soxla. Mhm. tey jii boo demee Marseille waxuma c'est le plus grand président que l'Olympique de Marseille n'a jamais connu. Mhm. soo fa demoon tey booy def sondage. ñaar ñooy fen ñaari tuut ñooy génn benn bi c'est Bernard Tapie parce que Bernard Tapie moo mus a gagné Ligue des champions en 1993 avec l'Olympique de Marseille temps yooyu tudd woon Ligue des champions mu ngi tudd la coupe des clubs champions moom moo ko gagné woon ba am l'affaire OMVA mu mu mu jógee foofu Valenciennes donc Pape Diouf moo ci teg tànkam tey jii képp kuy journaliste sportif sax sénégalais fii boo ñëwoon nga taxaw nga def sondage comment s'appelle le président de l'Olympique de je te dis que 60 pour cent ne connaîtront même pas le no mais qui a quels sont les anciens présidents de l'Olympique de Marseille. ñaari tudd dinañ génn de Pape euh, Bernard Tapie dina génn. mais Pape Touré ala kulli alin foo mënta jaar dina génn. loolu nag fierté la si ñun gis nga tey jii Marseille yi fi ñu ko teg demoon na ba benn moment sax bu nekkoon maire de Marseille. kenn du am lu muy lam-lamee kenn du am lu muy wax donc ce qui veut dire nag dafa am lu mu représenté. amoon na sax ambition boobu d'ailleurs. effectivement il a été candidat en en deux mille en deux en deux mille quatorze. aux mhm. élections municipales mais daf ko yéex daf ci yéex dugg. Mhm. mais tey li koy firndeel rek mooy boo ko musoon a fekk Marseille. Mhm. muy ànd ak yow Pape dafa dem ba benn moment mënul sax génn ci mbedd. munul parce que bu génnee c'est pas par ci pas par là pas par ci par là. loolu la donc dafa nekkoon une fierté. africaine dafa demoon aussi ba faire bouger les lignes ba décomplexer képp kuy noir jeune noir yu bëri yu nekkoon en France dañ doon xool ci Pape Diouf mu nekkoon seen royuwaay donc du ñu roy ci lu baaxul déedéet du ñu roy ci lu baaxul lu baax la ñuy roy nekkoon ku jàng am xam-xam am taxawaay am fit surtout ci dëkk yoonu il faut nga am fit te fit bi aussi il faut nga am foo koy wéeru da koy wéeru ci xam-xam bu wér dafa am fit am xam-xam bu wér di ko wone ba tubaab yi nee ko gonga kooku mooy Pape Diouf. Euh, côtoyé nga ko euh, ban anecdote nga ñu mën a wax ci Pape Diouf. en tout cas man su ma doon jéem a roy ci moom mooy c'est facilité il a il a le verbe facile ma la wax loolu loolu don de Dieu la. Mhm. amul benn question boo koy posé te du la ko du la mun a répondre euh, il était courtois certes mais il était franc. Mhm. il était à dire quoi que ça puisse lui coûter mhm. s'il n'est pas d'accord avec dina la ko wax xam nga tey jii boo xoolee situation CAF ñu bëri dañuy yaakaar ne dafa contre président bi fi nekk déedéet contre ko lu mu doon wax ci nit ñi yépp ci président CAF bi mu ngi nii feeñ na mhm. mu ngi nii feeñ ñëpp gis nañ ne fan lii rek la doon wax du question contre kooku du question d'accordul ak moom du question dafa soxla woon dara kooku joxu ko ko Pape Diouf yàlla may na ko lu mu koy may ba pare. Mhm. man li may jàpp ci moom d'abord mooy cette forte personnalité boo xam ne amoon na ko surtout aussi bañ a fàtte fu mu jógee parce que gis nañ ay noirs yu bari yu réussir en ñoom ñoom ñu ngi fa toog. ku mel ni moom ku mel ni Manu Dibango dans la danoon jàppale ay nit mais sans pour sans tambour ni trompette Manu Dibango il a fallu que mu génn àdduna par nit ñi doog a rendre compte kii kat kan moo nekkoon Manu Dibango soo xoolee tey jii Cameroun lu mu fa jot a def amul tambour amul trompette léegi lay doog a feeñ dafa mel ni sunu Aliou Addo Sadio bu mu génnee àdduna si la nit ñi doog a xam que ce que ce monsieur là représenter pour le Sénégal Pape Diouf c'est la même chose et li gën a doy waar mooy Manu Dibango ak Pape Diouf soo xoolee bu baax dafa mel ni destin moo leen unir kii mu ngi tudd Manu kii mu ngi tudd Mababa tuddul Pape Mababa M M kii mu ngi sant Dibango keneen kii mu ngi sant Diouf M M D D tu as vu destin ñoom ñaan ñëpp lan moo leen jëlee fii ci àdduna bi coronavirus tu as vu c'est extrêmement important et nekkoon deux figures emblématiques képp kuy nit ku ñuul képp kuy nom nekk homme de couleur nga nekk tugal mënoon nga tiitaroo ñooñu parce que xali na yoon bi wan nañ la fi nga war a jaar liggéey rek mu wóor nga teg ko si yoon ñooñu la ñu woon loolu la ñu woon tey jii xaw ma ndax may laa ko mën a tuddee wala déet ndax uh, yàlla may na ko mu génne àdduna ci réewam pays d'origine am muy uh, Sénégal mais contexte bi uh, mënuñu ko defal hommage bi war inhumation aussi ça pose problème lan nga ñu mën a wax ci loolu aussi xam nga yàlla mooy mooy dogal. soo xoolee bu baax personnalité bu tudd bu toll ni Pape Diouf. imagine toi un seul instant tey ji bu nekkul woon Covid 19. moo ko jëlee fii. obsegam la lay mel est-ce que nit ñi dinañ fa xaj. est-ce nit ñi dinañ xaj ci armeel ya nit ñi fu nekk lañ doon jógee. c'est à l'image man je me souviens très du ma ko comparer ak Nelson Mandela. dimension yi bokkul mais c'est à l'image de Nelson Mandela pratiquement presque. Nelson Mandela bu mu génnee àdduna gis nga amul benn président dëkkul en exercice bu ko fekkee déplacé wul ñëw Afrique du Sud man dina ma doon jaaxal bu nekkoon Pape jouf dafa génn àdduna fekk période bi ñu nekk nii te Sénégal kenn du fi xëj loolu lu ma leer la surtout nag les sportifs koo géjoon a gis ci àdduna bi mu nekkoon sportif dina teew Sénégal malheureusement nag lii peut-être la yàlla namoon ci moom bu muy génn àdduna ñu dem suul ko dans la plus grosse sobriété mais mhm. il faut que le Sénégal lui rende un hommage digne de son rang mhm. digne de son rang à l'image bi nga xam ne euh, gis nañu Marseille yi nu mu ko defal mhm. te jii boo jàppee télévision di nga gis Marseille yi nu ñuy rendre hommage à Pape Diouf suñu doom la suñu fierté la suñu kilifa la quelqu'un qui aimait son pays qui aimait l'Afrique qui aimait nit ku ñuul yàlla defaral ñu surtout nag mu nekk Sénégalais kooku bu génnee àdduna muy coronavirus muy leneen man j'attends à ce qu'il ait une des obsèques dignes de son nom. Mhm. même su fekkente ne lii moo ko fi génnee nañ ko suul mais on va prévoir quelque chose loo xam ne kenn du ko mus a fàtte. Mhm. parce que kenn waru ko fàtte. Mhm. Pape Diouf. ñu ngi lay jaajëfal euh, Ablaye Thiam. maa ngi leen di sant di leen gërëm. Mm-hmm. merci beaucoup ñu ne yow yaay euh, président association de la presse sportive euh, sénégalaise muy ANPS jaajëfal nañ la bu baax ci sa témoignage ci Pape Diouf. c'est moi c'est tout à fait normal maa ngi leen di jaajëfal aussi di leen di wax na ngeen continuer si yoon bi ngeen nekk surtout yéen les la nouvelle génération les jeunes mm-hmm. en tout cas comme ni ma ko waxee léegi. Euh, jéem leen roy ci ki nga xam ne yàlla jëlee na ko fi di di Pape Diouf vous êtes dans le sport vous avez une très très belle référence en tout cas